ñu naan c'est grave ñu naan c'est pas grave ñu naan bàyyi. am na ñu bind am na ñu bind communiqué ministère génn ni la ñu bind jotagul dara. ak ñoom man maa dégg ministre bi ci boppam mu waxal ko boppam. mu ne ñi li ñu génne baaxul. nee nañ waroon a génne génnewul. mais moom dafa daa génnewul boobu léegi. Ah, parce que mm-hmm. euh, cas yoo xam ne c'est avéré c'est Corsaf 2 bi. c'est le même virus Euh, Covid bi indi woon jëye ji. qui s'appelait comment ça encore sax xaw ma. SARS-CoV. waaw SARS-CoV bi moom c'est défini maintenant type bi ci SARS-CoV bi. Ah. Euh, delta bi voilà ñu léegi nag ñu a xam est-ce que delta wala delta. Mhm. bu fekkee delta ñi génn communiqué bële ils on raison et est que le ministre va le confirmer ou va pas le confirmer. même doom bi mu déplacé ba dem euh, aéroport ñu testé devant moom bon léegi nag xam ma am na coow bu fa am yëg ngeen ko. Pasteur muy xeexaa IRSF. oui bien sûr na prélevé warloo prélevé. bien sûr voilà Pasteur moo voilà parce que am na benn recherche bu bu coûteux bu ñu war a def pour identifier kii bi. Mhm. bu ñu demee beneen yow miy prélevé <laughs> amoo woon droit prélevé. Mhm. est-ce que di nga def. la la suite nga xam ne lu ñu leen nar fay. Mhm. donc <laughs> on est dans dans l'impasse. Okay. bon li okay. may conseiller vraiment ñi ma bëgg ax ñi ma gëm euh, commencé leen raxasu bàyyi mbooloo yi. takk seen masque bu ngeen mënee. Mhm. ah vraiment. loolu mooy conseil koy def. Mhm. en attendant coow bi daal il faut se préserver. kon Omicron XBB boobu lu mu doon. docteur boobu moom c'est pas très connu ah. delta daal la ñuy wër si c'est delta on va repartir vraiment dans le show. Mhm. mais nag comme ni ñu leen ko waxoon c'est une maladie qui a des variantes c'est un microbe qui a des variantes. ci variantes yooyu jusqu'à présent euh, ñu ngi am yu faible on en a eu en janvier ici dans un chantier ay 18 personnes yu ko amoon mais c' était pas les variantes qui bii tamit nañ dem jusqu'au bout mhm. ñu jox ñu ban variante la ñu régler le problème de l'histoire entre les deux labos mhm. surtout jox kenn instruction mu dem jusqu'au bout mhm. def liggéey bi donc sinon on se retrouve vraiment avec la la vie des des gens qui est en jeu pour une histoire euh, de monnaie ou d'hégémonisme d'un laboratoire sur l'autre okay. et le ministre doit trancher et que la population surtout médicale puisse prendre sa position vis-à-vis de ces de ces pli de ñi muy les soigner les soigner